parce que tant que Macky bàyyiwul lu muy def ñun du bàyyi di continuer di woote woote bi nag dëgg naam tey Khalifa Sall aye wante ñun lu ñuy woote tey lu ñuy xeex tey mooy ëllëgu Sénégal te ëllëgu Sénégal mënul am te Sénégal amul démocratie dama ne ngeen xam ne ni ñàkk ñàkk nañ seen bakkan ngir démocratie wu Sénégal peut ku ci gënoon siiw bi dem si yàlla Mamadou Diop ces martyrs ne sont pas tombés en vain ñooñu bu ñu doon xeex xeexlu ñu woon ngir Masamba wala Mademba dañu doon xeexal démocratie Sénégal kon les initiateurs ñu ngi leen di gërëm di leen di sant lii il faut continuer à porter ce type d'initiative parce que Khalifa Sall n'est que le symbole malheureusement de cette injustice qui s'abat sur la nation je crois que maître El Hadj Diouf wax na lu ci am solo ci wax du ma si delluwaat mais fii ci centenaire lii ñu sumb tey mu jëm ci défendre de principes mu jëm pour ñu organiser wu pour ñu libérer le maire Khalifa Sall loolu benn sénégalais waru ko wute ndax Khalifa Sall est un otage il faut Sénégal ñu xam ne ne lii tax Sénégal jëm kanam mooy ñu am un état de droit luy tax Sénégal jëm kanam mooy injustice yu mel nii te ñu teg ko sur le maire Khalifa Sall mu bañ fi amati donc jaar bii ñu jaar lu normal la mënoon nañ bañ a jël kaddu. ndax ba ñuy ñëw léegi suñu frère Barthélémy Diaz mu ngi doon wax tey lu mu wax dañ si ànd ak moom mu jeex tàkk moo tax ñu gëm na ne yéen yéen a war taxaw yéen a war a mobiliser wu boo leen di génn seen kër bu leen génn yéen rek wax leen ak seen i wax leen ak seen i wax leen ak seen i sœur c'est le pays qui est en danger c'est le Sénégal qui en danger à cause du régime de Macky Sall tey ñu ñoo war a xeex ñu libérer Khalifa Sall maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. ma ne a des lois laay waxal. le 23 juin c'était nous. Macky Sall. la fàttali ko nit bi Mamadou Diop di dee surgaam la fii. bi muy sol jegetam bu melon bi. yor mbir gàdd bi. jubal faas. ñu koy doon lacrymogène. mais fu ñu fekk. le 23 juin Macky Sall di taxaw. ci rond point bi. léeg-léeg mu dem naan ndox bu bëri ñëwaat léeg-léeg mu noppalu ñëwaat loolu fa la ñu fekkoon kon Macky Sall mënuñoo tere bu ñu naree violer loi Sénégal ñu xeex ndax Macky Sall Tanor mais jour boobu Moustapha Niass moo yoroon xeex bi kon ñooñu tey jooju tey parce que ñun Cheikh Bamba Diop président de la coalition ñu koy rafetlu ba tey ñun ñu mobilisé woon ànd ak Y'en a marre ak socialiste bu raw 23 juin journée assemblée bi ñu ko def te Macky Sall mënuñu ko tere ndax Macky Sall jour boobu daa ñëw taxaw euh, Ousmane Tanor Dieng taxaw Moustapha Niass taxaw ak xeeram kon bu ñu nee violon loi yi ce n'est plus politique c'est défendre notre république c'est défendre donc j'avertis la commission des lois j'avertis la commission ad hoc si toutefois qu'ils pensent qu'ils peuvent librement violer les textes et nos lois. Ils feront face à des républicains, ils feront face à des combattants, ils feront face à de Senghor.